comprendre nga. may dégg. waaw mu ñëw ma après ma. dafa am décalage wala déedéet sama modératrice yi wax leen ma xaaral ma yow sa lii moom kaala dafa am décalage ou pas sa modératrice ak modérateur Oussou nous nonaam s'il vous plaît dafa am Khady Dambar wax leen ma ba xam dafa am décalage ou pas. no non amul non ça va kon yéen sama a ah, amul waa sama ma xadi dambal nee na amul nu nee na amul yéen ñi nga xam ne dafa am génn leen tiktok bi da ngeen di génn duggaat da ngeen di génn duggaat parce que lii kaa te bu ngeen ko ratee moom yéen a xam ku ci ku ko ci am rek génnal tiktok bi génnal ci live bi nga duggaat après di nga gis ni affaire yi dina stable saa réseau bi mooy def loolu c'est vrai tiktok bi da koy def yen saa mais man génn naa duggaat kon yéen génn leen ngeen duggaat ok ñëwal ma chérie tapote leen bu fekkee dafay bëggee tapote leen dem leen 6 millions mais bébé dem leen 6 millions s'il vous plaît tapote leen comme ça dina dañ kër bu orange bi nekk sama kaw TikTok bi noonu dee leen ko laal sama kaw chaîne bi kër bu orange boobu day stabiliser live bi loolu dee leen ko laal de temps en temps parce que gëj ngeen ko laal ñëwal ma chérie comprendre waaw may comprendre waaw nga dugg ci kii bi merci mes bébés pour les cœurs nga ñëw ci restaurant bi mu jox benn serveur numéro am noonu la ko jox yow. d'accord léegi ma dem ma bëgg ñu gisante hôtel mm-hmm. tel maay mm-hmm. euh, bés bi ba ma demee hôtel waaw gaa bi ñu nekk di préliminaire yaa ma gën xam waaw mais maay bés ba mu su nekk bay ji waaw dama tiit ma ne kii nan lay ba am doom ba am doom quoi. kan la la yor may bis di doq moom mi loolu moom mënuma kaa gëm la yor doq doq doq man dama dama dama choqué tuuti la moom mi lii mënuma kaa gëm waay yéen bàyyi leen li ngeen di def waay yéen da ngeen mën yàq xel ah. maa ngi si gannaaw laa lay wax. toq toq kii naka lay def ba am jabar comprendre nga amoon jabar divorcé ak moom. amaat beneen jabar. oh Minda Minda ma chérie Minda ma chérie borom cadeau yu rëy yi Minda ma chérie merci beaucoup toujours là pour me donner des cadeaux tous les jours ma chérie merci. ñëwal waa waa ma chérie nag ma chérie lu tax nga yàqee bi ak waa ji ni mu mel. ma

maa besté ma mosul juróom mi man. léegi nu ngeen mujjee. te li ma lay nii. oh Minda nee naa leen mooy borom cadeau yu rëy Minda toujours là pour moi ma chérie merci beaucoup waa léegi. démb la xew dégg démb. loolu rek dëgg neew. ko sama élève la dégg mu naan duur rek sama élève la waaw. li di woo xeeñoo wuñ ko <laughs> en tout cas de nga sama xel ci kii de man de di ngeen tax man est ce que góor sénégalais naa seeyeg moom parce que ni ngeen di yàqee sama xel yi laa bëggul. maa maa ngi waaw waaw. naa la ma chérie waaye photo maa ngi xool photo bi nii xaaral ma dindi photo bi sax yàq nga sama xel nii du ma la ko baal du ma la baal lii. ak yow waa ji ni mu coofee nii mais pourquoi pourquoi yàlla du la may lépp tamit. Oh, princesse Minda ki yàq na sama xel bi oh, léegi waa ji mënatuma ko gis te duma xalaat loolu lii mooy cas bi indice am xam ngeen loolu ah, bàyyi leen ma bàyyi joxal ma indice ma mer oh, ki yàq na sama xel bi sérieusement bu dee may def nii mais man maa ko def kaay dama warul di laaj ay preuve waaye dañ kumpa ma jàpp boo déggee dañ kumpa maa nii toog maa ngi nii toog dama day kumpa may topp kaa allo jënd naa photo bi sax balaa ñu koy gis kaa yu yéeme ngeen may andil nii sama ngaam yaa ngi métti sax ndax ay reetaan <laughs> mais sérieusement allo. allo gis nga appel yi bëri rek surtout tey jii rek. <laughs> ak lekkee. Mhm. yaa ngi ci jàmm. Euh, dama amoon problème la. sama jëkkër. waaw si ginnaaw la may gën lay bu naanee si si waaw. ma ne de mënuma toog mënuma def dara. que su waxee mu foofu la yëgee plaisir du yëgee feneen fi plaisir si ginnaaw rek la mën a yëgee plaisir. des fois damay ne defal leen rek su ma defee mooy position bu xaw ma ndax c'est toléré pour moi. non waxaat ci olof déedéet TikTok da koy bañ merci su xaw ma lan lañ koy waxee sax mooy ni ngay sëggee juutu bi. juutu bi mooy juutu bi waaw. position boobu kay juutu bi moo ci kii xaw ma sookante boobu waaw. te daf may wax que ne du ko dugal foofu du ko dugal daf may nekk ne du ko dugal ci bonanees bi. foofu la ko dugal waaw waaw. mais saa yu mu defee loolu rek. buufala koy dugal maa gis ne affaire bi dafa saf dafa métti di lay ne wala fu ma toog mu toxat sax mënatuma ko téye damay toxat rek tout le temps ba pare mënatuma téye samay kaka mënatuma def dara toog su ma toogee toog bi yàgg sax day commencé métti wax naa ba sonn xaw ma la ma ko war a wax sama yaay xaw ma xaw ma lan laay def ndax lii moom mënatoo continuer te am na benn ustaas bi ma doon dégg mën a loolu dafa xaraam ci diine yàlla nangul loolu ma chérie waxuma la sa jëkkër ku ko sàkk yàlla wala apprenti. dafa rëy nag dafa rëy affaire bi dafa dijje dafa saf billaahi dafa ngande de loolu lu ndaw. waaw ma chérie yow tamit ah yow bu dem bu sew la sax yow baaraam rek boo ko dugalee ci bunaanees gis nga saf gi muy saf noonu. du saf mais ça te sax waaye affaire bi day saf. te dafa man xam naa lépp bopp bi rek lay ba mais dafay may des. nee na lu tax ngay nangu loolu mais ma chérie lu tax doo bañ tamit xanaa amoo génn. bañ naa ba sonn moom man tamit fois daf may mel ni sax daf may forcer man may bàyyi ko ndax su a ci man ko su ma bañ. waaw dëgg la mais mais ma chérie mais ma chérie euh, mu ngi lay soq ci kanam wala moom ci ginnaaw rek lay def. su ma soq ci kanam mais dafa ci ginnaaw la yëgee plaisir loolu la may wax. ቪስም ነው ቪስም ነው ቪስም ነው waxtaan ak yaayam comme yow mënoo ci dara te nee nga boo ko ko waxee dalay forcer sax loo mun na bañ a nekk góor jigéen de mais visam la parce que bu doon góor jigéen aana bi du ci bëggati dara bu doon góor jigéen aussi ci góor ña lay amee plaisir mais pas ci jigéen ñi kon kooku loolu vis rek la mais yow comme wax wax munul ci moom dara nee nga boo ko waxee bañu ci dara dalay sax forcé pour dem nga def affaire yi yaa ngi comprendre te boobu rek mun na la cee gaañ demal nga waxtaan ak yaayam wax ko yaayam nga ne ko mu waxtaan ak doomam bu dee yaay ji munu ci dara nag xam nga loo koy menacé ne ko boo arrêté wul li nga may ma sama baat nga ne ko boo ma boo arrêté wul lii non seulement di ma may sama baat mais boo ma bëggul may sama baat ma dem wax ko sama mbokk ñu ñëw jëlee ma ci sëy bi parce que lii nii moom wax déedéet balaa ngay wax ak yaayam sax déedéet bul tëb rek wax ak yaayam waxal ak moom ba pare ne ko gis nga lii boo boo ko continuer man beneen yoon boo ma ko defaatee parce que lii bëgguma ko mu may gaañ neexuma te dafa sax te yow xam nga xel ne l'islam bëgg ko kenn bëgg ko xam nga ne fu ma dem boole la man maay am dëgg nga wax ko loolu nga ne ko gis nga beneen yoon nag

beneen yoon dinaa dem noo seulement dinaa ko wax sa yaay mais dinaa dem wax ko sama yaay wax ko sama waa kër yëpp du ko defee ñoom ñu ñëw génnee ma ci sëy bii parce que xam nga ne lii du dëgg du li ma noppi moo tax nga ma koy def waaye neexuma benn yoon sëy dong laa bëgg mais ñëwuma fi pour ñu may torturer ma chérie lii man mi toog fii di wax ak yow du ma ko nangu sëy ci ginnaaw benn jigéen waru koo nangu neexul ba pare dafa saf ba pare lislaam bugg ko kenn kenn du ko loolu mais loolu ba plaisir la ñoom lay andee plaisir mais jigéen ñi loolu dafa saf ah mais ma chérie génn ci li nga ne ah li ma koy waxee nii rek man sama yaram baa ngi daw loolu dafa saf eh loolu ah déedéet waay tey ci ginnaaw rek ak baaraam rek boo ko dugalee sa sa bunaanees bi di raxas sa di raxas sa taat boo demee pour bi ba pare boo dugalee sa sa loxo bi rek da ngay bëgg a dee foofu rek doy na loxo rek baaraam rek doy na waaye awra awra bu dijj ba pare dijj gisoo ni muy waxee dijj bi ci xol bi la ko tibbee kon nga xam ne loo dijj na awra bu dijj rek nga bëgg koo dugal sama bunaanees bi yow foo ma jëmee loo yem fii fii yàlla yamale ñëpp ah yéen tam beneen def yi fu nit allo. ça va cool alhamdulillah. ah kon noonu la futur marié yéen laa bëgg ngeen topp ma yéen laa gën bëgg ngeen gën ma topp ndax damay bëgg ngeen dugg ci sëy bi ak ay conseils yu baax te defee kenn du leen dëgg si seetaan bi da di xam dugg yéen moom du ngeen réer du ngeen réer c'est bien yéen futur marié yi dee leen ma topp célibataire noonu la ma chérie merci beaucoup. d'accord bisous ma yéen eh, ma topp de am na ñoo xam dañoo dugg ba pare doog may xam loolu moom c'est dommage allo. oui ça va ma chérie. ça va waaw. Hmm. ma kenn déggu la s'il mais dindil haut-parleur bi nga wax ci téléphone bi wala écouteur yi. allo waaw kay très bien ngi si damaa am ci kër. waaw. waaw. kon sa ex bi moo mën monsieur mënul daal. ah. tey moo mën kay ndax bu monsieur mënoon doo dem seeti sa ex bi wala boo sa ex bi dalaa jox. pourquoi couper tamit ah, oh, ma jël keneen oh foo nekkoon ba xawma la ah princesse man sa genre yi dama koy bëgg ci sama live boobu ba léegi yaa ngi may baatare tamit te yaa ngi def yu fu mbindaay ak foofoole allo allo ma chérie ça kii nee na xaaral kii nee na ma bés si maa ngi woote ba son nan laay def ba dugg ci live bi ba duul sama duul yi <laughs> insistel ma chérie <laughs> xaaral keewaat ah jërëjëf waa waa kay téléphone baa ngi rajo xoo sax man non sérieusement nee na doo leen dem 10 millions ñu gis sañ sa bi waaw waaw du ay te rek heure bi moom jot na ba pare tey moom sañse bi du ngeen ko gis ndax heure bi jot na tey moom bëri nañ fi buñ fi bariwul woon te amuñu 10 millions sax dinaa doon jug mais tey bari nañ fi mais yenn a tapatewul fekkee sañse bi du ngeen ko gis romb bu cagalaa sol nii mais jégal leen mu ko rek ba beneen yoon ok dañ leen di wax tapate leen ba sonn du ngeen nangu tapate commentaire yi laa waroon tëj bu yàgg allo allo oui ma chérie ça va ça va alhamdulilah gisnga nga appel rek ma chérie c'est que boy insister da do do arrêter da ngay da ngay wote wote ba bis buñ lay jël rek tax kay bis bis ma vidéo man moom damaa dañ kumpa man moom ci preuve rek laay dox ak maa bëgg preuve <laughs> maa bëgg preuve xaa ba taal lamp bi ana tànn naa les preuves tapate leen ay ca tapate leen ñu tijji commentaire yi attends cara. Kiire preuve la moom lii moom preuve la ma chérie yaa nekk nii ak moom waaw léegi yàlla sàkkul kii mosu koo sànq. Hmm. xanaa Sénégal kenn kenn ci ñoom yàlla sàkku leen ko. ah. préliminaire moom mën na ko. kon cagewee ah, na na. cagawul à part préliminaire. Oh, non merci Diaw wuyu la moom mi. wuyu bu baax a baax a baax a baax. yàlla du la may lépp nag coof la coof la yàlla may na ko coof la xam nga am na lu mu war a am yëpp mais ah. waaw mais maa ngi si boppam problème ak a tàlli nag ak a tàlli. daa tàlli moom mi. waaw waaw. ah. attends lu mu yor benn nga boole ñaari nga. <laughs> mbaa nga bi génn na fii rek. Sakit. <laughs> Masa enak kita menyusui? Kung kada kana day tita na tere ko ay kusokul ko kada tita na ke ko kulu ya abay <laughs> ya, sama xel ya katu xel yi wajar. xel ngeen doon man ni ngeen di yàqee sama xel yi moom ma neexul quoi oh ngeen mën a yàq xel man day tax bu ma leen gisatee mooy loolu oh. mu dama lii rek di yàq sama xel yi nii ah kii nee na ma du moom ba yow yaa ma envoyé message bi lu ma ci xam

<laughs> man Tijaan moo tax ma bëgg la man bëgguma la Tijaan laa bëgg. Tijaan nga bëgg ci lan noonu lu tax. ko bëgg. li mu tudd Tijaan moo tax nga ba ko ndax Tijaan. <laughs> man de li sama doon Tijaan moo tax ma tuddee ko Tijaan yëg nga lii. Tijaan laa. c'est bien. machallah ñu ko la bëgg nak ndeysaan jërëjëf man de wax dëgg yàlla duma murid duma tijaan maa ngi fépp duma ñaseen duma lenn man jullit rek laa mais man dama bëgg sama yaay ba sama yaay comme tijaan la man tamit jàpp naa ne tijaan laa point sama mag bi moom murid la man tamit bu ma invité foofu damay dem man fu ma invité ma dem sama rakk yi ay ñaseen lañ kon xam nga ñun ñu ngi fépp mu ngi noonu merci ma chérie merci beaucoup Tidiane tamit bëgg na la sama yaay dé tax ma tuddé ko Tidiane dafa def eh sama yaay Tidiane akkan moy sama yaay allô allô allô oui ma chérie ça va. allô Bessie. oui ma chérie ça va. ça va alhamdoulillah ça va alhamdulilah. Khadija ñu dem 8 millions ñu tëjji commentaire yi dem leen 8 millions ñu tëjji commentaire yi ayca au moins 8 millions. ça fait plus d'une semaine baa ngi woote dama insisté bay bëgg a dee. bés yi dama xam xamante ak benn gars. waaw. waa e waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw léegi nag benn jour bu ne ma dafa bëgg jënd benn problème. Mm-hmm. waa ji jox ne. جار بالدور في الاغتنال بس بقولك يسيب واحد واحد اللي تبي يخدم عندي بس اوكي حاجة فص pardon حاجة فص فص مين مي واع علي فص واع بابا كو جيسي لول دما تيت ليجي دا واحد تخدم لول تخبر باتي بابا جدو ليجي بس ما جيس لولو waa ji jox ma xaalis ma def fes ak moom waa ji na li ba li si dëkk bi. attends ma chérie daf la invité nga nga nga xool lu ne ci biir tuwe bi nga ne ko lii fu muy dugg. très yooyu ñoo baax ci yéen comme bu ñu yoree ndaw ngeen ñoo fi wax ko yéen góor ñoo baax ci yéen attends. yow ma chérie affaire yi mu demee noonu mais bébé dem leen dem leen au dem 9 millions bu demee 9 millions ñu tëju commentaire yi comme ça benn million rek mooy des ngeen tappate ko mu jeex nañ dem 9 millions. ma chérie parce que yéen a ngi tappate nii lu am jom nii bu ngeen ko continuer léegi ñu am 9 millions ma chérie kañ ngeen dugg si si néeg bi ak kañ nga gis awra ak kañ nga génn néeg bi yow. dañ doon gisante yaa ngi dañ dañoo xamante. léegi dañ chaque fois dañ doon gisante si oto. waaw mais. benn jour bi dañ dem hôtel xam naa ne mu bëgg. waaw jox ba. waaw. waaye de daal moom la ma gëj a gis mu ngi may wàllu si dëkk bi di ma wër fu. non man xam nan nga gis ba nan nga def ba gis awra bi laa wax. xanaa génn mu ko. moom da ngeen si biir néeg bi rek mu génnee awra mu génne ko damaa tiit waaye moom yàgg naa xooñ di. Beneran nih. yaa yow say tànk ndax dugg ci néeg rek waa ji génnee bàngalaa bi rek ne la moo ngi nii léegi loo ciy def nga war a xalaat loolu bu muy dugg rek di la rey ngay génn di yaaba di di di boy dama ko réer si dëkk bi heureusement xamul fan laa dëkk bu ma may di ma menacé dina dina def may yóbbu si sëriñ daf may def damay bëggum lu nekk Claro ya ahora loolu moom police ko gën cheval rek yow gis nga cheval cheval buy saw rek war a koddal rek ba egg ci loolu cheval war a dugg sa awra loolu fu muy dugg baax na loolu kay yóbbu ma police yóbbu ma de sax ragaluma loolu tëdd kasoo ma ko gënal luy loolu yow ma ne ko ci luy loolu yow la xaru dem safaraa ma ko gënal cheval rek sama biir aana yow xaa danga maa bëgg a rey dangaa bëgg boo paree ci man benn góor duma jëriñoo te copain nga doo jëkkër bul fàtte allo hay comme benn benn xale bu jigéen benn xale bu jigéen moo ma doon nettali histoire am ci suuf nee na moom benn waay dafa doon dafay génn ak benn waay nee na ma moom mu ngi sokkanteeg ay ay copain am mais kooku daf gis nii rek xam nga mu naw ko nii ñu bëggante ñoom ñaar nee na ma ba mu xale bu góor bi lu ne la koy defal nee na benn jour mu invité ko hôtel ñu dem hôtel ñoom ñaar nee ñuy nekk di di waaw nee na ma xam nga rek sa élève laa ñu ne bërël rek ma ma ma xoy ma ma yëngal waa ji ba yaramam tàng rek ma dugal rek làmb nee na ma nee na ma may bés yi dama pare woon pour laalanteeg moom de nee na ma mais waa ji ba mu génnee awra bi nee na ma la ma tiit ba tëb ci lal bi ne ko man damaa vierge nee ma ta yàlla xam na ne musuma vierge nee na ma ne ko damaa vierge nee na ko déedéet dama koy brosse si buntu bi rek mu ne ko déedéet damaa vierge te damaa ragal sama waajur yi instant boo ko brossé si bunt bi mun na dugg ci biir bàyyi rek ma ñibbi nee ma may des si ba may ba génn néeg bi nee ma sama dàll yi laa gàddu nii <laughs> nee na ma xaaruma fa paasu taxi nee na ma xaaruma fa lenn nee na ma dama fàtte sama saag bi génn ma fàttali ko ne saag baa ngi ci biir nee ma duggaat jël saag bi génn te naan ko jéggal ma de mais damaa vierge <laughs> nee na ma nii laa dawee nee ma te ñoom ma mës a sopp ñëpp waa ji moo leen ëppale nee na ma maay des ci nee na ma moo téyee awra dama dama foog ne sax damaa juum merci princesse nee na ma dama foog ne damaa juum ba xam lalu la tànku lal bi laa jàpp war a bralal bi mooy hôtel yi bralal bi noonu nee na ma war a bralal bi wala tànku waa ji laa jàpp jaawale kaak awra <laughs> nee na dama làmb sama loxo nee sama loxo bi ngëbu ko loxo ma bi dafa rëy mu ne bi mu ne ma ma xalaat lii bu man baa bu ma fi génnee ambulance du ma jël nee na ma keroog boobu la laa téye sama bopp ba jëmmi jamono ji <laughs> ma ne ko gan di yéena naañ dañoo ndawle dañoo ndawle rek léegi daje nga ak sa morom <laughs> góor rek baax ci <laughs> non. Hmm. eh 8 millions 4 c'est bien léegi ñu tuddi commentaire ay ca 9 commentaire waaw lu tax appel yi di tëgg comment allô. allô ma chérie. oui ma chérie ça va. alhamdulilah. alhamdulilah. mooy de choix c'est-à-dire. genre man dama am ñaari côté. waaw. ñun ñaar ñu bokk see lañ may ki mooy. kuñ déggoo nit ñi bu ñuy di la yow yow yaay wax loolu dañ lay rey de waaw. keneen ki Sénégal Sénégal. fan waaw. léegi nag ki nekk fii Sénégal boobu mooy cooxan xam nga man mi ngi daal. mais nag ku nekk extérieur. nit ñi yàggul loolu tax man xaaral ma sax. man bi ma koy gis si photo. tane xaw ma woon may gis dafa gàtt maa ko sut. dama jàkkaarloog moom si découragé. gàtt gàtt gàtt ak maa bañ góor gu gàtt. waaw ndekki un mètre soixante dix la am xam ni kooku dafa gàtt si yow ngay def ñaata yow. waaw dafa un mètre soixante treize. Ah. maa def. mais tellement dafa gàtt. gàtt gàtt torop torop. billaay dafa gàtt torop si kooku moom sama cousin la muy réeré. man mii de xalaatuma génn góor gu gàtt nga war a nekk fii rek man ñi ñeme talon rek ma war a nekk ci kaw. dañ koy njoolal rek si noonu jàll. kooku moom baal mu seen parce que doo doo ko mës a génnee ci nit ñi parce que da ngay rus te mm. sa jëkkër moom boo demee ba koy rus a génnee ci nit ñi moom baal mu sedd ma chérie. mais nag defoon na lu ah. ba pare leel bi may gis gàtt ñuul ñaaw ba pare leel ba egg ca xol ba <laughs> ya egg ca xottu ya. <laughs> leel ba egg ca xottu ya. bii kay bi si si digg kii moo leen ñaaw ñuul. leen du problème de man sama jëkkër daa leen. déedéet maa gis problème bi diggante moom moomu. waaw ma chérie xaaral ba ngay lekk xaalis bi yow loolu yëpp gisoo ko ah <laughs> ah bi bu ah! <laughs> lu nga di nga ko guqi de di nga lekk noonu di nga ko guqi de ah yow yow ñaawaay bi yow daal bu taxawee ak yow daal ngay gis ñaawaay yow moom bëggoo mu jege la waaye xaalisam moom yaa ngi ko jot cinq sur cinq ndax daa tabe lépp mënu koo boole nag mënul boole gàtt ñaaw leer ba sori ba ci xottu taat yi bëgg cee boole tamit ah euh, nay boobaa nañ ko dóor ba mu dee mais <laughs> ki waaye ba tey awraam bu dee mën na dugg def fa dara rek garaaw buy dugg ci aana def dégâts rek kon kon mën na garaaw. yow daal bu ko utal sikk ma chérie descend wàccal <laughs> wàccal demal nga sëy ak moom yaa lekk xaalisam ni mu ko bugg wàccal acca descend <laughs> kii xale jigéen ñi bu ñu ñëwee ut solution fala waxul ci keneen ki de ci kii la wax moom daal bëgg naa débarrassé wu ci kii kii nga xam ne moo gën a tabee moo tax góor ñi ndeysaan am na góor yoo xam ne defal la mën nañ la defal de mais dañuy téye seen loxo parce que dañuy bañ defal la ba ci biir nga mu doon mu ñu jeté ko à la poubelle daal xam nga tamit loolu neexul tamit nañ waxante dëgg neexul nag neexul wax dëgg yàlla allo oui ça va toi les tapotages ay ci jàmm allah ayca aar ma tijji ko ñu dem 10 millions ayca tapote leen nag dem leen 10 millions rek foofu toj macha allah ñëwal ma chérie. man mm. dama man dama am sama benn mm-hmm. copain ma nekk ak moom mais moom nag. wala sa écouteur s'il te non non def ma la haut waaw da ngay jege téléphone bi tuuti s'il te plaît. mais yaa ngi dégg nii bu baax ñëwal. ok dama xam nag côté. Mhm. mais moom euh, lu bari. Mhm. dañ ko naan. Mhm. léegi benn mu ñëw si ma dama koy testé ndax ci yow laa ko déggee. waaw léegi mu ñëw mu dugal sama loxo bi di xool. mais moom daal boo bëggee dégg-dégg li mu yore man depuis bi ma ko gisee ba léegi xoolal su ba léegi daf gis bu ma wooyee dem naan ko est-ce que xam nga ne yàllaa la sàkk bu ko defee mu nekk tëdd ci suuf. Mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw man nag affaire bi daf affaire bi daf ma jaax ndax lii bu duggee ci man ma gis katu ma di. <laughs> Maodo yàllaa ko sàkk plus. yee romb nay sàkk ko kii moom macha allah. man affaire bi daf ma sàkk. nag mën nga ñu mën koy yow yow mooy man lii nu may def moom kay laa xamut. attends nooy def ak moom nix merci nooy def ak moom yàlla ko sàkk mais ma yàlla sàkk ko ba mu mel ni fas n'est-ce foofu moom duñ ko zirik ma chérie par A ou par B duñu ko laal moo ëppale fas góor bu ëppale fas am na. ah waaye déedéet exemple bi dee ko zirik nag ndax ñun xam nga dégguñu daaj na dee ko zirik ah <laughs> bu doonee bu ëppalee fas moom duñ ko zirik par force ay. waaw. meru man xaajuma bay mer damaa bëggoon nga zirik ko rek njar bi moom ñu koy jàllale suñu putax yi warul dang warul warul zirik ba trop foog nga xawoon koo zirik tuuti ñu mën koo jàllale suñu putax yi waaw waaw kay très bien ñëwal waaw waaw waaw mais dafa rëy ma chérie am na ñu gën a rëy sa jëkkër teewul seen jabar yi ñu ngi ñu ngi yéeg di wàcc mais assumer rek affaire yi bi rek mooy sax début bi boo ko muñee xoolal def ci jom ak fulla ak fayda rek après le reste ça va ah. d'accord waaw parce que amul benn problème mm. dégg naa la incha allah. voilà. waaw baax na ca merci beaucoup. leen dix millions bi pour lan la. ah damaa bëri tiitar loolu bu leen ma koy wax ndax damaa bëri tiitar non bu leen ma wax déedéet. ki la ko joxoon mooy sa tay moom sama temps yëpp sama sama kii bi la mais tay moom sama sama lale la sama jëkkër moom ab yee kaw ba suuf xaaral ma jug rek ndax 10 millions yi leen ñu mat xaaral ma jug rek yow yaa tax jug nag. waa coupé coupé coupé acca dem. <laughs>